asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo nun di ñu seetaan wala ñu ñu déglu fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ndigal bàyyi ko waat na ci sëriñ Touba seex Sidiyal Muxtaar xalif général kulu murit yal na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci sëriñ Cheikh Mbacke xalifab Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem njabootu sëriñ Abdoul Xaar gépp sëriñ Abdoul Xadir gépp ñëw nag ci kër gu tedd kër gu mag di këru koo xamante ne bii lépp lu mu bokkoon ak Serigne Touba Xaadim Rasul jaayoon na ko Serigne Touba jënde ko doon ab taalibeem ànd ak sëriñ Touba ca gànnaar ak mbooleem dëkk yi nga xamante ni góor yàlla yi takk nañ fa seen ndomb ak tànk kooku mooy kan moo di sëriñ Ibra Fari Mbacke ndigal li nag ñëw ci kilifteefu Serigne Mbacke Cissé waaye wàcc si ci nag Serigne Mamor Mbacke jëwriñu Serigne Ibrahim ak mbooleem rakkam yépp muy bis bi nga xamante bii. at mu jot sunu gàmmoo ba bis ba delsi danañ maase daje fii ci kër gi fàttaliku ko ci ay ñaan fàttaliku ko ci jàng alxuraan fàttaliku ko ci jàng xasida waaye fàttaliku ko ci ay salaatu ala nabi waaye fàttaliku nag ci doxinam wu sell moom ànde woon ak sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy doxinu pas-pas ba bis boobu nag moo dellusiwaat war a doon gaawu fukki fan ci weeru janvier dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmm wi moo tax ñu toog fii ci kanam sëriñ bi fas yéene taatan ay kàddu yoo xamante ni bii bokk yi ngeen jàkkaar lool danañ ko yëkkati ngir fàttaliwaat ñu bis bi waaye fàttaliwaat ñu nag jëmmi sëriñ Ibrahima Fari moomee moo tax ñu ngi toog ci wetu sëriñ Mamor Say fa yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Cheikh Mor mi nga xam ne mooy wax ci turu bokk yëpp su daanelee ñu jox ko sëriñ Chouaïb bu Mbàkke mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem sët yi su noppee nag danañ ko jox sëriñ Sang Jaañ miy wax ci turu taalibe yi su noppee sëñ Mbàkke Abdourahmane mii nga xamante ne bii ñëpp xam nañu ni mu demee ci kër gi mooy wax ci turu sëñ Maam wooteel ko bis bi kon ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ seex moor ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci ndigalul sunu kilifa di sunu wayjur di sunu kilifa ci anam yëpp di sëriñ Maam Mor Mbàkke mi sëriñ Ibra Fëri Mbàkke ci biir nuyoo bi ak siyaare bi ñu ngi ciy jiital sëriñ bi nga xamante ne moo toog toogaayu sëriñ Touba ci kaw suuf di sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke ñu ngi koy nuyu di ko siyaare te ak mbooleem ñi mu bokkal sëriñ Touba ñëpp ci mbooleem bokk yi ak mbooleem talibe yëpp mooy ki nga xamante ne moom lañuy jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi gannaaw bu loolu jàllee ñu ngi nuyu mbooleem jullit yi ak talibe yi yëpp fu ñu mën a nekk ci kaw suuf te nekk ñu dëkkandoo ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax fu jullit nekk rek. a mbokk nga dëkkandoo nga foo mën a nekk kon nag ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi ñëpp di leen siyaare itam di leen fàttali itam ni bis bii nga xamante ne moo di bis bi ñuy woote di bisub sëriñ Ibra Fari Mbàkke fii ci kër sëriñ bi ñu di ci woon nag mbooleem mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp mbooleem koo xamante ne nii yàlla dogaloon na sa wayjur demoon ci sëriñ Touba koo mën a doon foo mën a ne ñu ngi la ciy woote di la ko yëgal ndax koo xam ne amoon nga tawfeex it sëñ Ibra amoon na tawfeex dajante fa ak yow ak koo xamante ne yaa fa jiitu woon sëñ Ibra ku mën a doon gannaaw bokk ngeen teen bu ngeen demoon bu nekk koo mën a doon ñu ngi la cey woote di la ci di bëgg kenn ku ne ñëw ci jàppale nu ci. ci biir ñëw gi ak woote gi nag li ñuy woote du dara lu du sant Serigne Ibra mi nga xamante ne moo nu boole ci Serigne Touba. di sant Serigne Touba mi nga xamante ne tawfeexal nañu Serigne Ibra ba mu wootee Serigne Ibra nangoo wujji kon loolu la ñuy ak cant ak ñaan. aku fàttaliku Serigne Ibrahima na mu doon doxee loolu rek la ñuy woote bëgg képp koo xam ne yaa ngi fiy jëm si di fi ñëw na nga xam nanga bàyyi xel ci ne woote bi ñuy wootee jàng alxuraan ak jàng xasida ak salaatu ala nabi moom lañu fiy woo moom lañ fiy woote moom la ñuy sàkku itam képp ku fi ñëw nga am pas-pasu fas ko fi yéene def te kenn ku nekk am pas-pasu fas fi yéene taatan ndax kat barab la boo xamante ne ak kii koo xamante ne képp koo xas ne demoon na ci Serigne Touba bu ñu koy defal bis ku fa dem ku ne. loo fa yóbbaale ci ab pas-pas ci bëgg lu baax mën nga ko faa jëlee kon nag ñu ngi sàkku ci ñëpp kenn ku nekk buy ñëw mu am pas-pasu fas yu yéene jëlee lu baax la nga xamante ne moom la sëñ Ibra jëlee woon fa sëñ Tuubaa te yéene woon bokk koog ñëpp kon ñu ngi woo taali euh, jullit yi ak taalibe yi ak bokk yi nekk di lim nag day juumloo nit moo tax du ñu mën a lim waaye ñu ngi bàyyiwuñu kenn daal képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abdahu wa foo mën a ne ñu ngi lay woo ci bis bi muy bisub fàttaliku ak bisub ñaan ak bisub sant yàlla bisub sant Serigne Touba itam moom la ñuy woote kon nag képp ku dib taalibe nag te yaakaar kër gi te aju ci kër gi koo mën a doon foo mën a ne sa ndigal mooy bu bis ba jotee loo mën a jàpp na ko bàyyi te ñëw ci ci liggéey bi te ñëw ci ñaan gi kooku loolu loolu moom bokk na ci li nga xamante ne bokk nañ ci taalibe yi yëpp loolu lañ leen di sant bokk yëpp itam ku mën a ñëw ku nekk ñu ngi sàkku sag teew fi kon nag jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah bokki julli di bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam di sant yàlla di julli ci yonent di sant sëriñ waa Xaadimu Rasuul euh, li ñu daxa daje fii tey nag mooy fàttali loo xam ne dañ ko daan def ba ñëwaat ci bis bi tey jii ñuy fas ci yéene yëkkatiwaat suñ kàddu wootewaat ko nañ ko daan wootee ci ginnaaw buñ ñaanale xalif central di murid sëñ Sidi Mokhtar ñaanal ko mu yàgg fi ba li mu bëgg a liggéey sëriñ Tuubaa mu def ko eh, buñ ci jógee ñuy ñaanal sëñ Maam mi nga xam ne moo jiite kër sëñ Ibra di suñu waajur ñu teg moom ba lii ñu fas yéene liggéey sëñ Tuubaa ñu man koo liggéeyal bis bi nag niñ ko daan organiser rek lañ ko fas yéene taxawee ci mboolem suti sëti sëñ Ibra Faal yi fas sëñ yéene di lancer appel boo xam ne li njëkk liñ war a njëkk a def mooy gannaaw ñun Serigne Touba dañoo fàggaloon suñu cëru bopp ba ñun ñëpp àdduna bépp teg suñu bët teg ci bët li ñu leen di sasaat mooy képp koo xam ne si sëtub Sëñ Ibra Fari nga wala ngay sëtub soxna Farimata Lo ñu ngi lay ñaan addee Serigne Touba joo xam ne kaamilu alxuraan lay doon nga fasoo ko fannoo ko bu munta doon ñaar ñetti benn bi moom nañ ko def képp koo xam ne si sëtoo na ci soxna Farimata Lo nga xam ne lépp lu waay di def ci génn kër gi ñëpp nga ko defal ci ñetti ñetti kër yooyu ba ñeenti kër loolu nga xam ne moom lañ doon def muy muy sas boo xam ne képp ku bokk ci kër gi ñu ngi la koy ñaan la ca toppaat it mooy niñ bëgg fas yéenee niñ fas yéenee taxawale bis mooy bu ñu xëyee danañ fas yéenee tàmbali jàng alxuraan ci bis bi euh, ba bëccëg ñu def ay bernde bu ñu defee ay bernde ba noppi danañ amal ab jataayu alxuraan xam naa bu sëñ Mbàkke Abdourahmane accès dana leeral kan mooy defee def def jataay boobee li ci toppaat mooy fas nañ yéene képp koo xam ne si itam. yaa ngi ñëw ci bis bi booy ñëw nga am sasu xasida woo xam ne da nga koy da koy indaale ak sasu sasu salaatu ala nabi boo xam ne da nga koy indaale ndax ñun kat dafa am loo xam ne si mooy suñ mbir ci yëf yi Sëriñ Tuubaa la ñuy sant di ko santal Cheikh Ibra waaye Cheikh Ibra moom am na lu mu defoon muy ab toolam mu di ci liggéey Sëriñ Tuubaa loola mu defoon muy ab toolam mu di ci liggéey Sëriñ Tuubaa nag ñun nga xam ne ay njabootam lañ fas ko yéene liggéeyal fas ko yéene euh, defal loo xam ne da koy fekk fa tëdd te du ko naqari mukk mooy li nga xam ne yar nañu ci suñu njaboot suñuy kilifa nàmpatal ñu ci nañ def loolu muy suñu dawtal ci biir liggéeyu Serigne Touba boobu euh, loolu nag dara gënu ci yàlla dara gënu ci rëy dara gënu ci doon farata alquranul karim xasida yi Serigne ak salaatu ala nabi yi nga xam ne baaxoo nañ ko def loolu daal di gën a lancé waat appel mboolem ñi nga xam ne njaboot Sëñ Ibra lañ bis bi niñ ci war a taxawee ñu taxawee ko ci ci façon boo xam ne si ñun danañ ko def li nga xam ne dañ koy gën a indiwaatit mooy bépp autorité boo xam ne si mi ngi ci département bi ba ci région bi ñu ngi ko koy yëgal di jàll ba ci ministère de l'intérieur di jàll ba ci président de la république ndax bis bii ñuy def kilifa yi nga xam ne ñoo yor réew mi am nañ ci responsabilité bu rëy boo xam ne war na war na leen ci ni mu waree ci yeneen bis yi ci des yëpp ndax bis la boo xam ne képp ku ñu defal bis ci dëkk bi gënoo ko yàlloo defal la bis lépp lu ñu defal nit ci dëkk bii di ko def te autorité di ko def niñ ko war a defee ci niñ koy defee ci bis yi weesu lañ ko war a defee ci bis bi kon ñi ngi koy gën a yëgalaat président de la république son son excellence mm, Macky Sall ak ministre de l'intérieur di ko yët yëgalit gouverneur ak préfet ak sous préfet di ko yégalit ñi nga xam ne ñooy suñuy autorité locale rawatina ñi nga xam ne ñoom la sëñ Sidi Muxtaar teg yëfi dëkk bépp ci seen loxo ku mel ne Abdoulahat Ka ku mel ne euh, Abdoulahat Jaxate ku mel ne nga xam ne moo organisé màggal Touba Cheikh Bachir Cheikh Mamadou Bachir porte-parole xalif général des mourides ñooñ ñooy ñi nga xam ne sëñ Mamor nee na mi ngi leen koy yëgal ah di leen ko fàttali di leen ko bàyyiloo xel di leen xam ne bis bii rek la am amul lu bis bii ndax amul lu dul sëñ Ibra Fari lépp lu mu am ci Serigne Touba ci sëñ Ibra la ko amee ndax cër bu mu am ci Serigne rek sëñ Ibra ko waajal waajtaay ba nga xam ne ba mu ko yóbboo fam fam ba mu demee fam demit lu mu am ci. kilifteefu Sëñ Ibra la ko amee kon bis bii rek la am kon mi ngi koy tàmbaliwaat ci ku mel ne Cheikh Mamadou Bachir rawatina maire dëkk bi di Abdou Lahad Ka rawatina chef de village dëkk bi di Sëñ Abdou Lahad Jaxate di demaat ba ci autorité yi nga xam ne ñoo yor territoire national bu Sénégal kon daal loolu laa ne woon naa ko jot li ci turu organisation bi di ñaanit li nga xam ne gën nañ cee insister mooy képp koo xam ne si sët na ci seen referi ñaari kaamil yi moom na nga ko def suñ bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokk soxna Fary Matuloo ñu ngi leen ñaan kenn ku ne bu ma nee jàngal sëñ Ibra Fary maama ju baax ji ab kaamil mu defal ko ko ndax lam ñu war loolu ñun ñëpp defal nañu ko te ñun liñ ko war loolu duñu wàcc mukk kon fii ak ñu ko fekk war nañu te duñu wàcc kon ñu ngi leen di baax a baax di jéglu ci kàddu yi da ngi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi fii su kanam sunu sëriñ sunu yaakaari tey ak ëllëg di sëriñ Mamour Mbacke gën koo xam ci sëriñ Mamour Say eh, di waajal bis boo xëy ne bis la boo xëy ne umu islaam bépp ko bokk rawatina ñi bokk na Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bis boobu di bisab Cheikh Ibrahima Mbacke ñu gën ko xam Cheikh Ibra Fari muy bis boo xëy ne bisab fàttaliku la ni ko jëwriñ ñi weesu waxee bisab ñaan la bisab sant sunu borom subhaanahu wa taala la waaye bisab nag dollikuwaat ngóorngóorlu ak jom ak pas-pas ci ki ñuy fàttaliku nam doon liggéeyal Serigne tubaa ba am lii mu am tey. loolu nag bu ñu ko yëkkatee day jaadu ci képp koo xamante ne kër gi nga yaakaar ak foo nekk doon ab taalibe ndax Cheikh Ibra foofu taalibe nekk rek am na ci moom ab cër ndax Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima ñëpp la woon islam bépp la nekkaloon waaye dafa baax nag bu ñu koy wax ñu wax ne taalib yi nga xamante ne dañoo bokk ci kër Cheikh Ibrahima gi loolu nag ñu ngi ci soññi mboolem koo xamante ne muy góor muy jigéen bis boobu fu fu waay mën di nekk na nga bàyyi la nga nekkoon bàyyi la nga jàppoon te xam ne bis bi mooy sunu bis mooy bis bi nga xamante ne moom màggal ak tubaa moo war a yem si noonu képp dong bu fekkente ne sax benn bis la dafay fekk ne bis bii nga xëy ne kii nu moo la boole ci Serigne tubaa bisam bii leen gën a jàpp est beneen bis bu ma di doon kon fu fi nekk lay yella ci yow lay Pastef ci yow la di ak takku ci yow la di ak taalibe ci yow nga bàyyi lépp loo jàppan ak foo mën a nekk dikki fuy ci fii ci woote bi nga xëy ne Serigne bi woote ne ko jëmale ko ci bisab Cheikh Ibrahima bi nga xëy ne ku fi ñëw kenn tawfeexi Serigne tubaa rek nga fiy jëlee bis boobu nag Serigne bi nee na mi ngi ciy woo njaboot ak Serigne Modou Diop ak njaboot ak Serigne Modou Diop gépp nee na mi ngi si woo njaboot ak Serigne Moussa Diagne njarnu ak njaboot ak Serigne Moussa Diagne gépp nee mi ngi si woo njaboot ak Serigne Malick Fall Salaw nee na mi ngi si woo njaboot ak euh, euh, Serigne Mambay Diouf Kaolack mi ngi si woo njaboot ak Serigne Moussa Thiam ca Kuude mi ngi si woo Serigne Abdou Mati Ñang mi ngi si woo Serigne Cheikh Mbay Kaolack ñu ngi si woo Serigne Mor banna ñu mbann ñu seen bann ñu ci woo sëriñ ma silla ñang guube ñu ngi ci woo sëriñ ba ciise ñu ngi ci ak ak njabootam gépp ñu ngi ci woo sëriñ Moussa Ndiaye xewar ak njaboot ak sëriñ Moussa Ndiaye xewar gépp ñu ngi ci woo sëriñ Thierno Touré Jalop Njalab ak njaboot ak sëriñ Thierno Touré Jalab gépp di ci woo sëriñ Cheikh Ndiaye ak njaboot ak sëriñ Ibra Fali Ndiaye ca Njaayeen Njaayeen njaboot ak jabel caméra ci jabo ca jokkantin sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo muy tënku rek ci li sëñ Cheikh Mor waxan léegi ku lim da ngay juum waaye li gàttal fuf taalibe nekk te bokk ci kër gi wala nga bokk ci geneen kër na nga xam ne bis bii ñu woote bis la boo xamante ne taalibe yëpp ak jullit yëpp ñoo war a maase jublu ko dikk sàkko si njariñ ndax bi kat bis bi bisam njariñ képp la bisab diine la bisab islam la kon ku yuyoo diine di wuyoo islam rawatina di wuyoo Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu defal jàmbaar ju mel ne Cheikh Ibra bis bii foo mën a nekk war nga fi ñu si woo nag mbooleem daayira yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Touba rawatina daayira yi nga xamante ne ñoom laa bokkal ab liggéey te kër gii di sama kër di kër gii nga xamante ne ci la sama yaakaar tey ak léeg nekk bépp daayira boo xëy ne daan naa a demal ak foo mën a nekk ñu daan jaxasoo ci liggéey Sëriñ Touba ci wàllu daayira maa ngi la woo ci bis boobu suñu xëyee sa gaaw ba kenn ku si nekk loo jàppan na ko bàyyi te fekk si ma fii xëy na képp ku ma daan lebal bis bi yee taxan ma doon la lebal ku ma daan àndal koo xamante ne xaman nga mbaa ma dégg la mbaa ma daan jaxasoo tax nang ma fekk si si kër Sëriñ Mamour Mbacke gi jàkkaarloog xëy ne ngi ko defal sama turandoo di sama sëriñ di sama lépp muy Cheikh Ibrahima Mbacke woote bi daj na fépp ñëpp la woo bàyyi kenn bàyyi fenn wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi arrahmani arrahim alamin wa sallallahu wa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ci turu sunu wayjur di sëriñ Mamour Mbacke mu yëkkati kàddoom ci ndigalul sëriñ Seydil Muxtaar xalif alxalifatul amlil muridin xafisahullahu taala wa raa waaye di yëkkati doom ci kilifteefu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di xalifa sëriñ Abdou Khadir Mbacke ak njabootu sëriñ Abdou Khadir leen fàttali bis boo xam ne bisu way jurama mook ñi mu bokkal way juróo yëpp di sëriñ Ibra Fari Mbacke ak ñi bokk moom ñëpp te ñi ci seen kanam jiite njaboot gi di sëriñ Cheikh Mor mii nga xam ne moo di taawam woofu njaboot gi ne ci seen kanam mu leen di woo ci bis boobu bëgg ñu ñëw ànd ak moom dëggal ndigalul sunu borom bi wax ne woo soy na linsaana bi waalidayhi xusna sunu borom moo dénkaane ñu rafetal jëme ci sunuy wayjur bokk na ci rafetal jëme ci wayjur taxaw ko ginnaawam di ko ñaanal waaye di dundal lim fi bàyyi ci ak mbokk ak kóllëre kon bisub dundal mbokk la ak kóllëre bisub ñaan la bisub fàttaliku waaju baax la ju liggéeyal yàlla ci ron Serigne Touba ba mu gërëm ko mu bëgg ñëpp ñëw bokk si ko moom yiw la woo xam ne da ko yéene boppam yéene ko njaboot gi bëgg ñu ànd ak ñoom ñëpp jàpp ci ci biir liggéey boobu mu ngi ciy woo kon képp koo xam ne njabootu Serigne Touba nga radiyallahu mi nga xam ne moo ñëpp ci ron lañ nekk waaye di ci woo bokki Mbàkke ak bi di ci woo képp koo xam ne Serigne Touba moo la seexal mbaa mu seexal sa maam. di ci woo ñëpp ñi nga xam ne daal seq nañoo sëriñ Ibra Fari sëriñ tubaa mbaa ñu bokk ak deret moo xam ci mbakke la walla ci euh, cekkeen la wala ci ndaam wala ñu masa wóllëre ngir lislaam ñëpp daal mu ngi leen di woo ci bis bi di ci sàkku nag ñi nga xam ne ñoo ne ci daara yi di jàng alxuraan karim ñu fàttaliku sëñ Ibra Fari kenn la woon ci ñi njëkk taxawalal sëñ tubaa daara yi kaamil mm-hmm. yoraloon ko daaree kaamilam di ko jàngal kon jëwriñ la ci tool boobu kon suñ koy fàttaliku bëgg nañ ñi ne ci daara di jàng kaamil yor ay daara kaamil ñu fàttaliku seen jëwriñ jooju nga xam ne Serigne Touba ko joxoon ndigal te mu rafetaloon ndigal li fexe ba kon ñun ñëpp ñu ànd ak njaboot gi ñëw bokk dundal bis bi muy sàkku nag képp ku fa teew la taxoon Serigne Ibra Fari gàddaay fekki Serigne Touba jaay ak mbokkam jënde ko taalibe mbokkum Serigne Touba ci anam yëpp. waaye lépp la jaayoon ni ñu ko waxee ci tàmbali bi jënde ko ak be ne ci ginnaaw Serigne Touba mu tërbiyee ko ba gërëm ko tofal ko ngërëm ngërëm loolee nag day des ci moom ba faw ku laal ca loola sunu borom mën la caa gërëmale ndax la mu waxoon ne ida tu baraktu walaysa li baraket yi borom mi nee na su ma gërëmee dinaa tofal barke te sama barke amul fu mu yem amul fu mu yem mooy kon lu ca lal ne mën a barkeel bëgg barke boobu tasaaroo nag moo tax ñu bëgg ñëpp ñëw ànd ak moom ci bis bii muy wooteel way jërëm gi di ko ñaanal sunu borom moo santaana ñu fàttaliku gaa ñu baax ñi fàttaliku leen ci ay ñaan waaye fàttaliku leen ci seeni jikko ak seeni melokaan bëgg nit ñi roy ci ñu mel ne sëriñ Ibra Fari waxtu wu ne ndaw ñi war nañ koy fàttaliku war nañ koy eh, bàyyi xel bu baax a baax ndax seeni jikko ak seeni taxawaay réew mi da ko soxla réew mi soxla na defaraat jikko yi soxla na ko ci woo leen ci liggéey loolu lépp nag sëriñ bi nee na mi ngi ko yaakaar ci bis bu ñu ànd ci moom nag moo njabootu sëriñ Ibra Fari la sëriñ Ibra Fari it njabootam mooy soxna Fari Matuloo mi nga xam ne ñi mu meññ muy waa kër sëriñ Abdou Fari waa kër sëriñ Moussa ak waa kër sëriñ Ibra mii seen mag ak sëriñ Ahmadou Dieng ñoom ñëpp benn bis bi seen bisa ndax ñoo bokk soxna Fari Matuloo waaye bisub sëriñ Daam Abdourahmane Lo it kon ñoo ñëpp daal nañ xam ne daa ne fii ci kër gi doon jëwriñ waaye ñoom la fi nekkal kon su wootee ci seen tur la woote ñi mu woo nag mooy ñëpp ñoo xam ne bëgg nga ñu lay tudd ci dara di tudd sëñ Touba moo xam njureel moo xam mbokk deret wala mbokk pas-pas moo xam mbokk lislaam te réew mi nag kenn génn ci loolu ñun ñëpp daal sëriñ bi neen mi ngi leen di woo te am yaakaar ci dañ ñëw wuy si te ku wuy si nag la mu jële woon ci sëriñ Touba ci ngërëm yàlla na wàcc ci sa kaw ci loolu daal mi ngi fàttali ñëpp taalibe yi ñu xam ne ndigal yi sëriñ bi digle mu ngi leen ko fàttaliwaale addi yi ñu war a joxe ndigal li mujj joxe ci màggal gi na ko kenn ku ne bàyyi xel ba màggal gi woote bi yàlla it kenn koy def ci sa xalaat ndax lu sëriñ bi dégle moom kenn waru caa mën njabootu sëriñ Ibra ndax kenn mënutoon sëriñ Ibra ci toolub sëriñ Tuubaa sëriñ baa ngi leen di séenu yéen ñëpp di ñaan ñu àgg ci ak jàmm euh, dundal kook jàmm lañ cee def lépp suñu borom nangu ko gërëm ko te yokkal ko ay maqaama ci àjjana yëkkana yëm nekk waaye ñun ñëpp ñu am ci ngërëmul sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi seetaante di ñu déglu yaakaar naa ne kàddu yi jot na fa tabarakallahu waaye leer na xam nañu itam ki ñu bëgg a fàttaliku xam nañu ko ko fàttaliku ku ne sun borom subhaanahu wa taala dana la fàttaliku mu bokk ak sëriñ Tuubaa xaadima sol ci fànn yëpp waaye la sëriñ Tuubaa waxoon ca Jolof ne li fi nekk ak bokk du ko maye ba mu ko xamee la jaay bokk ga waaye ba mu ko jaayee ba noppi nag daa sol daal di wuti li sëñ tubaa yor moo tax sëriñ tubaa yaral ko boppam tarbiye ko ca na ko neexe ba ngërëmul yàlla wàcc ci moom sëriñ bi nag soog koo wàcce loole nag la bokk yi di fàttalikuwaat ci yéene yool ba képp koo xamante ne bii jóg nga ngir sëñ Ibra yi la ko sëñ tubaa seddoon nga jot ci moo tax sëriñ Mamor nee na woote bi ni ko bokk yi woote doy na waaye daal fukki buntu kër ak ñaar yi nga xam ne moom la Mamor am muy juróom-ñett góor yi ñeent yu jigéen bàyyiwu ci benn buntu ku ca mën a bokk rek mi ngi lay woo ak noo ca bokkee xam ne bis bi moog yow moo ko bokk waaye bu ñu tuddee soxna fari matuloo xel yëpp dana dem soxna Aysatu Lo moom bokkal ndey ak bàyyi sox sëriñ bi nee na mbooleem ku ca bokk rawatina njabootug sëriñ di Yónni ga bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn nee daal mi ngi ñaan képp koo xamante ne bii gaaw fukki fan ci weeru janvier teg nga sa tànk fii ngir ànd ak ñoom ci bisub sëñ Ibra Fari bi la sëriñ Tuubaa di séddale ëllëg yàlla na ko teg sa loxo te kenn bañ la caa ëppale wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.